Euh, duñ ko présenté ti Sori Kaba ambassadeur sax Kaba wax mi directeur général des Sénégalais de l'extérieur euh, nek homme politique également di militer ci APR euh, rawatina fi nga ni Modi ki nga président de la République ak tamit matarba, bi nga ministre ministre des sports ak yeneen nga

day intéressé yenn saa yi sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii seen doom yi nekk bitim réew naka noonu ñu ne bitim réew seen njaboot ne fii alors directeur euh, d'une manière succincte lan moo di situation sénégalais yi nga xamante ni tey jii ñu ngi au niveau de la diaspora alors situation bu paisible même bu fekkente ne dañu nekk ci contexte boo xam ni contexte la boo xam ne occidentaux yi dañuy wax partout que c'est une crise migratoire ñom ñi ngi woyé crise migratoire benn flux de départ bo xamné da fay joggé dans les pays du sud di dugg ci dëkk occidentaux yi ba sax ñom ñu xaw jaxlé mu xaw leen inondé ba pays yépp ku ci nekk di jog Union européenne di jog Amérique di jog ku ci nekk di joxogn baramu tuuma jëmé ko ci pays du sud yi nga xamante ñom lañuy wax les pays émetteurs de migrants mais may wax ni rek lolu ci gis-gis la rek waaye ci biir réalité bi loolu nekkul parce que bu fekkee dañu interroger l'histoire ñëpp xam nañu ne amoon na ay jamono yoo xamante ne ci la flux ëppoon dugg biir Occident bu ñuy xalaat guerre d'Espagne di jóge woon ci ay espagnol dugg biir Occident kenn xamul nu mu toll crise des Balkans bi muy am même chose la dayu bi tolloon toll ko ci waxtu wi ñuy wax waaye nag comme ay pays africains lañu ñom ñu japp ni sen sécurité intérieure dafa menacé wu extrême droite bi sur le plan politique sur le plan électoral di jël de l'ampleur té ñoñu seeni thème de campagne politique modi que bu fi ben étranger dëkk bu fi ben étranger dugg bu fi ben étranger ñëw lolu moy élément nouveau bi nga xamné ñom duñu ko wax mais ñun ñi nga xamanté ñu ngi ci réalité yi lolu lañuy gis te argumentaire yaa fi sur le plan scientifique pour démontrer ko donc li nga xamante ne ko wax pour répondre avec exactitude li nga laajte ci situation sénégalais yi nekk bitim réew moo que situation la boo xamante ne li ma décrire léegi daf ciy impacté inévitablement parce que tey mbirum insécurité dafay dugg mbirum terrorisme dafay dugg te loolu dafay durcir conditions de séjour yi dafay durcir conditions d'entrée. entrée yi moo tax ba ñu nit ñu ngi jël suñuy matuwaay pour xool nu ñuy gën a taxawoo

amu fa tuuti. non non du ma jàpp ni paradoxe la parce que xam nga euh, cas de mort yi toujours dañ koy regretter parce que doomu Sénégal bu génn àdduna nga demoon wuti ngir dimbale sa njaboot nga ñibbisi ñu tëj la ci benn kees dara gënul métti loolu tiis boobu euh, famille bu mu dal kenn mënul xayma métit bi fi mu toll ci ñoom mais au-delà famille bi sax réew mi ci boppam lay métti. mais loolu boo koy xool euh, du loo xamante ne tey dañ ko war a jàpp comme le fait dominant comme le fait marquant parce que sénégalais yooyu amul ku yor fetal di leen wër di leen rey comme ni ñu koy yaakaare ay mbir la yuy xew te ku dul suñu borom mënuñ cee musal parce que munoo teg ci benn bopp doomu ginnaaw sénégalais bu ne policier bu koy garder ba loolu du am militant extrême droite raciste bu génn këram yor fétalam, di dox ci mbedd ba yem ci ben africain malheureusement muy sénégalais nga tiré ko lu ci nit man kenn mënu ci dara nga séq ak italien ngeen séq affaire mu dem ba affaire ba mal tourné mu jël fétalam fekk la fa nga taxaw mu ray la lu ci Sénégal mën en tant que gouvernement comme bi mujjee am Brésil ngeen dem ci foire jaay seen njaay di ñibbi mu am ñu leen gor ñu leen dàggal euh, ñu ñu leen interpellé ne leen ana li ngeen yor jox leen ñu ko ngeen bañ kenn kay xeex ak ñoom ñu jël ci bakkanam lu ci nit man sax à dire que loolu mooy les faits léegi nag procédure yi nga xamante ne tey état teg na ko pour que chaque fois bu mbir yooyu amee ñu taxawu famille ñu interpeller état bi nga xam ne falam mbir bi amee pour que mu assurer sécurité sénégalais yi

waxtaan ak ñoom andi leen message du président de la république créé fa comité de crise bo xamné autour du consul général sénégalais yi nga xamante ñoo am jafé jafé te président association bi nefa bokku ci comité bi famille bi am problème bokku ci ñu ay avocat toftal leen ci pour ñu leen di xelal pour que les lu ci wara am ñu porter ko et lolu moy démarche bi nga xam mom adopté dorénavant pour que cas de meurtre yoy ñu mën élucider. absolument mais au niveau de la direction des sénégalais de l'extérieur est-ce que am ngeen ben maîtrise ci flux de migrants bi nga xam ne ñooy jóge Sénégal di dem parce que souvent am ñuy am passé par la voie normale xëy na am ñoo xam aussi souvent euh, bu ñuy génn kenn du xam ci anam bañu démé demee yooyu noonu est-ce que tay am ngeen idée une fois sur place le nombre de Sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo fa ci ben chiffre bo xamné yeen xam ngeen né carrément maîtriser ngeen doomu Sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi au niveau de la diaspora euh lu jafé question bobu pour ñu mën ci tontu. Mm-hmm. joxé chiffre bu exact parce que comme nous nga ko nous avons na ñoo par voie normale Nous allons jaar dañuy dem ci ambassade demande visa ñu may nous ko ñu voyager ñooñu mën nañ ko xayma bu ma jëlee exemple gestion flux migratoire entre le Sénégal et la France nous ci une idée mais le corridor Paris-Dakar il rek ne foofu le Sénégalais yi dem a jafe biñ ci am mu gën ñoo sonal les flux de départ irréguliers foofu le mel bu et d'ailleurs flux de départ irrégulier Il y a une étude à l'université université de Dakar je crois un laboratoire de l'université. université de Dakar pour voir que... tous les jeunes sénégalais en âge de travailler sont de potentiels migrants Lolo déjà une idée ci ni xayma bi flux de départ. ils sont vulnérables en quelque sorte. ils sont exposés. Mm. et dafa am tentation comme on dit souvent.

migration dafa am njariñ ci mom kon mënuñu ko arrêté té duñ ko jëm waaye dañ koy rafétal ba mu gëna impacté ci développement wu réew mi kuréel yooyu nag ak jumtukaay yoy tay ci lañ toll diko mettre en œuvre ba aussi wax n'a ko dans chaque région mais day am aussi ay natangom yu ñu ubbi dans les pays d'accueil ubbi nañ ci ben en Italie muy guichet de promotion de l'investissement de la diaspora objectif am moy sénégalais bu bëgg ñibisi parce que tukki ñaari mbir la mm. départ dafa am arrivé ñibbisi dafa am même bu fekkente des conditions de séjour yi aussi ay accords sont améliorés. mais ñaari point yooyu mooy point yi nga xamante ne képp kuy état da nga ci wax di liggéey bés bu yàlla sakk te yàlla def na nag je crois que résultat yi bientôt dinañ ko sentir en termes d'organisation mais également en termes de chiffres et de statistiques pour ñu mën xam exactement 3 millions de sénégalais yooyu nekk bitim réew ñaataa ci bëgg ñibbisi lan moo ñu war ci ñibbisi bi en terme de accompagnement financier ak accompagnement non financier ñaata lañ leen war a pour ñu accéder au foncier fan lañ ko war a yi dafa war gratuit wala warul gratuit ñoom lan lañ ci war def ainsi de suite ainsi de suite yooyu bientôt inshallah, allah dinañ ci gën a am lu ñu leer parce que études yi ñu ciy def dinañ ko partager ci délai bu gàtt incha allah. kon su ma la déggee daal bokk ci seen mission ngeen travailler sur les conditions de retour ñi nga xam ñoo di Sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a condition de retour yoyu moy mhm. tax ñu mëna a wax ban impact la migration amal Sénégal xaalis biñu yonne amna ndariñ lool parce que fay équilibrer socialement économiquement politiquement suñu réew mais dafa am leneen lo xamantene mo ci ëpp solo les compétences au sein de la diaspora capital humain bobu suñu ñu leen mënul andir ñu contribuer ci développement économique réew mi ba occidentaux yi seen bop ñoy ñëwaat occuper waat ces niche de valeur du positivement et d'ailleurs, ci débat bi nga xam ne tey euh, ñu ngi koy wooyee ñoom crise migratoire soo koy xool rarement nga ciy dégg pays bu abordé impact bi migration bi am ci dëkkam en termes de travail effectué de dépenses quotidiennes effectuées en termes de euh, de connaissances acquises et partagées ci dëkk ba mu nekk mais ñëpp xam nañ ne Sénégal doomu Sénégal ci boppam ci domaine bu muy munti liggéey rek yàlla da ko ciy ubbil wërsëg da ciy xarañ te ñoom xam nañ ne Sénégal doomu Sénégal yi nekk victime réew benn préoccupation la ñu am mooy seen dëkk lu am dañ koy dans dans la sous-région dans la sous-région 40 des envois d'argent dans la sous-région atterrissent au Sénégal 40 ça veut dire au moment où un pays yi seeni ndoom yi nekk bitim réew li leen intéressé mooy seen condition de vie ci dëkk bañ mhm. Sénégal li ko intéressé c'est naka la njabootam bi mu Sénégal nekkee ci condition loolu rek déjà c'est un déterminant important qui fait que le retour dañ ko war di tout à fait mais ci li nga xamné modi bureau d'orientation yi nga xamné te un peu partout au Sénégal est-ce que aussi bokku na ci un tableau de bord ngeen travaille à ce que les garçons ou les les jeunes ngeen jëm leen également pour xam leen que tamit euh, c'est pas que né dañuy pour atteindre sen objectif mais on peut toujours rester au Sénégal et réussir. ça c'est une question pertinente et boo xol moom le revers de notre action et d'ailleurs souvent nit ñi dañuy defal benn genre procès boo xamante ne amuluñu njariñ boo koy xool parce que dañ naan ñu euh, on a comme l'impression que le ministère des affaires étrangères dafay wutal nit ñi liggéey maintenant alors que du loolu dañu jàpp ni sénégalais bi nekk bitim réew soo ko mettre dans très bonnes conditions mu ñibbisiwaat am fi ay projet di ko ou ubbi entreprise nga accompagner ko te jeune bi nekk à côté de lui avantage il a tendance à partir pour en bénéficier. Tout à fait. conséquence il faut nga boole le même traitement. Mhm. même privilège pour que nga mën fexé ba jeune bobu du dem mais dina mën a donc revers de tay indi approche territorialisation de la migration. affaires étrangères bu ko d'habitude c'est dans les consulats et les ambassades mais depuis 2012 on a reçu des instructions fermes il faut travailler dans les territoires de départ avec les collectivités territoriales, avec les ONG, avec les associations sportives et culturelles, pour que nous puissions intégrer la dimension migratoire dans ce qu'ils font au quotidien. Parce que si nous le faisons, les lu ñu nous bitim réew day yàqu moo il faut le le territoire de départ territoire d'accueil pour que nous puissions sur le plan potentialité sur le plan échange culturel sur le plan euh, dialogue des territoires lan la a andi ba nous potentiel migrant bi nga xamante ni mu ngi waaj a dem te xamul fi mu jëm mhm. à la limite il fait un saut dans l'inconnu nga dimbale ko ba saut dans l'inconnu boobu mu bañ a nekk dans les océans mu bañ a nekk dans le désert parce que foofu la fa nekk ci ay ay ay ay doomu Sénégal yu ba yu perte seen àdduna yu perte seen dund jéggi dayo te mënut a continuer donc inévitablement il faut que ñu sóoraale jeune bi nga xamante ne tey mu ngi fii tey waaj dem ñu fixer ko ba buy dem mu dem dans les conditions yi nga xamante sa vie n'est pas en danger. absolument le cas désert désert bi nga wax sax léegi moo ñuy yóbbu ci man li may le cas Libye Sénégal yi fa nekk sonn nañ euh, gis nañ toujours ay exemples yi nga xamante ni dañ koy wax wala ñu gis ko fa jógee ñëw euh, ban décision ngeen jël wala ci yeen politique ngeen di travailler tay ji ni pour dimbale ñi nga xam ñoy ñooy ay compatriotes souvent ci ay conditions yu difficiles yo xamné buñ la koy netti sax euh, vous n'en revenez même pas. depuis le début de l'année depuis janvier 2018 mhm. plus de 1200 sénégalais Ont nañ en Libye. rapatriement. En au moins eu leur vie ont été sauvées mhm. Libye yàlla dimbale nañu La crise migratoire bi tax la ba mu commencé parce que les Européens ont fexe ba déplacer frontière bi Libye mais dañ ko Niger les frontières européennes sont au Niger aujourd'hui pour mën a gën a téye africains yi ba dootu njëkk si Libye neexul ci xel ci dégg-dégg parce que autres pays yi dañu am seen autonomie dañu am seen indépendance waaye nag dinañu permettre ba ñu faagaagal traverser désert bi nga xamante conséquences sur le plan humain kenn xamul nu mu toll ña fa nekk liguey liggéey liguey ñuy liggéey ak sunu ambassade bi nekk Tunisie ak ambassade bi nekk à Niamey mooy ñu identifier ñu bép doomu sénégalais bo xamantene bëgg nga ñibisi ñu accompagner la nga ñibisi parce que nak ce qu'il faut pas oublier amna ay sénégalais yu nekk Libye te ñibisi xeyna xëy seen condition baax na. voilà mhm. motax toujours bu ñuy wax Libye mhm. nañuy bolé ñi bëgg ñibisi waxu nak doomu sénégalais yi fa nekk nañu fa jëlé mhm. non amna ño xam ñu ko fa te bëgguñoo ñibbisi kon ñi bëgg ñibisi ñibbisi lañu wara identifier waxtu wi may wax ak yow liste biñ ci yor mu ngi tollu ci 270 ñi bëgg ñibisi ñi bëgg ñibisi

mais waxuñu ñu ne dañ koy liggéeyloo te fayuñu ko te defe naa esclavage mooy loolu. Mm. di la liggéeyloo te la nga war a jot doo ko jot. donc mënumaa wax ne amu fa mais li nga xamante ne moom la ñu sénégalais yi famille yi fi ne seen doom ya fa nekk di leen woo di leen ko wax loolu moo ci ëpp mais duñ ko exclure mais esclavage boo koy xool tey par les temps modernes du nekk esclavage bañ ko doon déggee. Nous qu'on koy le trafic d'êtres humains. exploitation de l'être humain par un être humain. Et ce qu'on koy c'est le revers de la migration Nous devons combattre par des droits par des lois pour que les pays sur le plan communautaire sur le plan international ratifient pour que nous puissions combattre. Nous devons toujours que la migration ku sur le plan national parce que su tu ne verras pas le bout du tunnel il faut que nga aborder sur le plan communautaire sur le plan national avec une approche globale nga xam da ngay tous les paramètres yi nga tous les facteurs qui interviennent tous les acteurs qui interviennent dans le processus de la migration mhm. du chauffeur du bus à celui qui nga xamante ne mooy affrété pirogue qui ki nga négocier le prix nous avons des acteurs à identifier ku ci engager sa responsabilité absolument alors si ñu jëlee li nga direction bi nga direction des Sénégalais de l'extérieur gis nañ fi Fès également ban connectivité ban corrélation moo am ci ñaari direction yooyu parce que boo seetloo xaw nañu niroo mission un peu. non bokkuñu mission. Hmm. ça n'a rien à voir le FES est un démembrement de la direction générale fonds d'appui investissement sénégalais de l'extérieur. Hmm. sànq wax naa politique de retour ku bëgg a ñibbisi état bu Sénégal dafa teg benn jumtukaay bu ñuy wax FES su fekkee da nga yor un euro ñu jël ci état bu Sénégal genn wàllu euro yokkal la ko ci sa euro pour nga mën réaliser sa projet kon moom fu muy intervenir mooy uniquement ci financement doo ko dégg ci rapatriement de personne doo ko dégg ci assistance sociale doo ko dégg ci sénégalais bu génn àdduna mu wax ci investissement rek lay gérer pour sénégalais bi bugg a ñibbisi ñu jël as lëf ci loolu ñu dénk foofu yokkal la ko nga mën réaliser sa projet donc démembrement la direction générale parce que la direction bi que je ne direction au niveau de la direction générale nous avons la direction de l'appui à l'investissement et au projet Nous étudions étudier tous les projets que nga sénégalais de l'extérieur déposé pour bëgg pour investir donc DAIP le bras technique bu FES. avant que FES ait accord de financement DAIP mooy étudier d'abord projet soumettre au comité de financement le comité de financement validé valider projet après nous avons a valider pour qu'il am million 2 millions 5 millions pour accompagner le nga réaliser ce projet. donc FAISE la direction générale nekkuñu dans les mêmes missions mais dañuy complétante. Mm-hmm. absolument c'est un démembrement de la direction. bon à savoir alors si on ko Sénégalais peut-être que nous bu ñuy des dara ñu ngi léemu suñu bopp ak yooyu mais mais est que directeur parfois booy tëdd xalaat ni am nga njaboot yoo xam ne dañoo nekk à yàlla nañ ko yàlla musal war nga mën a yeewu ñu annoncé la benn nouvelle boo xamante ni tey jii nii da ngay nekk au devant métti la lan ngay xalaat souvent booy tëdd ak booy yeewu souvent lan ngay lan ngay gën di ñaan di wax. non foofu kay li may njëkk def mooy baalu àq sama soxna parce que ni nga ko waxee dafa mel ni que da ko xam bu baax ko dund. Mm-hmm. parce que dara gënul métti nga tëdd ba guddi sa téléphone sonné. nga yaakaar ne ki lay woo dafa juum. kon doo fay guddi. non non nga yaakaar ne ki lay dafa juum te fekk juumul soxlaa ko tax di woote da ngay jóg wuyu ko wax ak moom. parce que ca la mu ne. ba tax muy woote bu munoon a xaar ëllëg ba bët set dina ko xaar kon su boobaa njaboot gi ñooy nekk ci jafe-jafe parce que yow su boobaa dootoo nelaw te téléphone bi sone rek mën na déranger. Mhm. mais ni nga ko waxee la amee moo tax toujours li ñuy ñaan suñu borom mooy mu jàppale ñu. ba buñu dem fenn di fay lak mu jàppale ñu ba buñu dem fenn di installer comité de crise parce que comité de crise foko installer rek parce que amna lu fa xew lo xamante ne musiba la mu dimbale ñu ba bép doomu sénégalais bu nek bitim réew sa projet bi nga porté muy projet migratoire nga bëgg améliorer condition de vie wu sa famille nga bëgg Sénégal nek un pays émergent

Euh, ne souvent lu ci ëpp sax ñu koy créer seen intérêt bop mom mo leen ci yobbu ba ñen ñi jog affaire bi xaw leen nakari nan nga gisee mbir mom waaw je crois que incompréhension am na ci. Mhm. te li tax mu am incompréhension moo di que militant moo doon wax te militant bi doon wax euh, conviction moo ko tax di wax sur le plan politique. Le euh, cadre ma yëkëti rek am fu ma ko teg mhm. dama alliance pour la république mhm. comité la am boo jógee ca comité ba boo demee Kaolack Tamba Ziguinchor foo mënti dem comité mhm. kese moo fa am comité yooyu amuñu fu ñuy comme terme structure intermédiaire pour waxtaan ci mbir nous tassé au niveau départemental nous tassé au niveau régional comité rek moi am ku au niveau national. Mhm. avons un directoire mais en plus du directoire le président crée un secrétariat exécutif national kon sur le plan structuration sur le plan partage de responsabilité une machine électorale. Alliance pour la République, en termes de partis politiques organisés, présents partout dans l'intérieur du Sénégal. teew nañ nag fu mais organisation bi dafa Je suis kon investissement bi def ci mouvement de soutien yi tee ñu def ko ci parti bi organisé parce que mouvement de soutien yi su nit ñëwé seet si ma fi ci sama bureau bi ne ma kat dafa bëgg grand théâtre naa ko dimbale mobiliser mais man bu may mobiliser kan mobilisé mobiliser lu dul militant père le mouvement de soutien bu ban plus-value la andil parti bi ñooñu laa ne dañuy nax président te amul njariñ ci ku bugg a gagné élection amul njariñ ci ku bugg a yor ay ati at pour nga yor réew ay en tant que parti politique da ngay fexe ba parti politique boobu une véritable machine électorale machine électorale c'est d'abord une organisation et je pense à au partage de responsabilités, c'est d'abord la présence en termes de communication et d'information. On ne peut pas contraindre un peuple, mhm. mais on peut le convaincre. Mais pour convaincre un peuple, il faut une démarche. Donc les mouvements de soutien, c'est spontané, c'est épidermique. Est-ce que ça est dans une perspective durable Mouvement de soutien, je ne le crois pas. C'est ma conviction personnelle. Absolument. Comment ce que mais jàpp ni lu bon la. Mhm. mais pas na gën à condition que ñu renforcer d'abord parti bi ba parti bi taxaw ngeen doog renforcer ce parti bi mais parti bi taxaw ngeen créer un mouvement de soutien. Mhm. alors on est à quelques encablures des présidentielles ak locales yi fatigue bi ngeen nek noy na wala noyul non fatigue c'est l'électorat du président qui est là-bas Sori Kaba moo fa am problème moom mi wut électorat. Mhm. man ak samay ñooñ ñi fay voter Le président moo tax ñuy voter

kon bu ñu la dénkee as lëf da nga koy aar duñ la dénk as lëf chaque fois boo xëyee coppati ca lañ la dénk lekk dugal sa gémmiñ ñu romb leen dem sa yoon non lañ la dénk da nga ko war a aar suuxat ko ba mu gën a naat pour que ëllëg boo koy dénkaane yow it nga am ci ndam loolu mooy sama philosophie moo tax tey Fatick ku fa mere président Sori Kaba tax nga mere ko ku ko fa mere Matar Ba tax nga mere ko. Mhm. moo tax ñun ñoo war a xoolaat suñu boobu mais ce qui est moo di que wax naa ko léegi. le fait que le parti organisé wul bokk na ci problème yi ba tax na ñu nit intelligence de groupe pour nous. nañ dajalool suñu bopp xool lu ñu a suñu ensemble ba kenn du yàqal kenn parti bi gagné ci militants yi gagné président gagné ci et que parti bi une image positive malheureusement cette intelligence de groupe su amul mënuloo ko imposer parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. si on appelle au, pied à quelques mois des élections pour ngeen mën structurer

yow buñu démé man ak yow élection ma gagné la mën nga gedd dem renforcer di opposition kon nañ bàyyi situation bi actuellement mu continuer mais depuis 2012 à maintenant on a eu le temps même bu fekkee y a eu plusieurs élections man sama souci mooy kii ñëw après man ak man ci ñi ma topp su parti bu organisé on n'a pas d'avenir relation bi nga am ak président Macky Sall warul nekk une relation fraternelle mais dafa rek une relation de camarade mu gis ne yow tu es convaincu tu es compétent mu am lu mu la dénk te loolu pour que mën a ne il faut partir pour organiser wu nga xam da ngay a gis de nouveaux leaders qui émergent de nouvelles têtes qui émergent de par leurs compétences et des militants ñoo leen jiital donc xëccoo démocratique boobu moo amul biir et c'est regrettable moo tax su fekkente ne effectivement ni nga ko waxee am naa un appel bu may lancé xam naa ne fii ak 2019 xat na mënatul ne mm. mais après 2019 bu ñu yàlla mayee ndam ba ñu pare nañu jublu ci organisation parti bi. parce que suñu avenir ci loolu la dépend. exactement dernière question rapidement nga tontu mooy Sénégal yi ma doon wax léegi souvent ñàkk seen barkan ak yooyu ban disposition ngeen jël souvent pour seen ay rapatriement corps yeeg yooyu noonu. waaw foofu moom je crois que am nañ ci avancée bu significative. Mhm. parce que am habitude di ko wax en 2012 bi nga xam ne président falu na mhm. am na benn jumtukaay bu ñuy wax caisse aide et secours caisse aide et secours ci caisse d'avancée. mais c'est bokk la bu Khalifa Sall parce que ce mom ay loubal la donc caisse liko que jog moy sénégalais bu nek ci jafé jafé ñu jël ci aslef taxawu mais bi ñu en 2012 40 millions la won caisse bi 40 mhm. millions pour 3 millions néew na lool manam koku so ci rapatrier 10 corps mhm. en raison de 4 millions par corps. alors que xam nañu que euh, morts naturelles yi ñoo les cas de de meurtre. Mhm. Parce que c'est entre 150 à 200 rapatriements qui sont assurés dans la caisse. Le président a pris la caisse à 640 millions. C'est ce que je dis à toi. Il y a un peu de temps pour les Sénégalais qui sont dans les bitimes. Si tu sais que ton bâton est pas en train et que ton bâton n'a rien à faire, ils l'ont aussi indiqué. Si tu sais qu'ils ont pris le bâton dans ce qu'il n'y a pas, ils l'ont rapatrié. Donc c'est ce que tu sais. Mais ce n'est pas durable. Le durable mooy police d'assurance Le durable mooy caisse communautaire loolu la ñuy invité sénégalais ñu souscrire ci ñu mettre ko en œuvre parce que su boobaa dafay yombal mbir yi kenn du fi nekk di xalaat ndax corps bi dina ñëw wala du ñëw systématiquement dafay ñëw moo tax appel bi ñuy lancé jëmee ko ci sénégalais ci wàllu woowu mooy que nañu fexe ba ñu mutualiser suñu force pour que ëllëg lu ñu bett ñu mën a sukkandiku ci caisse mutuelle boobu pour mën ko régler. directeur émission bi jeex na lan mooy sa kàddu gu mujj

sont grandement ouvertes aux Sénégalais de l'extérieur Si am des questions, am question poser réaliser au Sénégal nous sommes là pour ça Ce mhm. téyewuñu fi lu dul mhm. polémique ama lu ñu politique politicienne politique, le Sénégalais de l'extérieur nga bokk APR nga ñàkk bokk APR nga bokk PDS nga bokk PIT ça importe peu Sénégalais de l'extérieur point c'est tout voilà nous profitons aussi ci occasion bi les sénégalais nous nga nous euh, année à travers les nga xam diaspora bi gërëm leen également toute l'équipe nous bi nga si numéro bu en Libye. bi jox leen homme politique wala beneen porteur de voix d'ici là portez-vous bien en compagnie des programmes de Dakaractu TV jërëjëf